wala guinéen wala question. sénégalais sénégalais d'accord euh, Barthélémy Diaz euh, am na sañ sañ xool diw ne ko yow de sa profil doy na ma ci lii jël naa la nga accompagne ma sama liggéey wala déet. nu contact bi prise de contact bi entre Barthélémy Diaz ak. Euh, mais Barthélémy Diaz. et Barthélémy Diaz gis na lu xew ci. dossier Seydina Omar Touré jàngat na tamit profilu Seydina Omar Touré bu mu nee jàngat na ko mooy euh, c'est un jeune capitaine radié spécialiste en droit privé spécialiste en droit public mm. et aussi ancien officier de la gendarmerie mm. mu ne profil bii de war na mun a méngóog. li ma soxla lu ma soxla. mais profil dafa am loo si fàtte. lan radié de la gendarmerie. waaw radié de la gendarmerie mhm. pourquoi. oui. pour avoir trahison selon selon leur terme. da nga bañ ba ne da nga bañ leur terme. Mhm. c'est pas le c'est pas c'est pas selon terme de Barthélémy encore moins de de d'un tribunal euh, nu mu tudd sénégalais encore moins du peuple sénégalais. Mhm. donc nag ñun loolu tënkuñu. ñun lu ñu tënk mooy le gars euh, capitaine Touré il a le profil qu'on demande par rapport donc à ce poste. Comment et que Barthélémy Dias xam nga tey fii nii nga ne Salam Fall. moom mii xooloon la ba nga doy ko ba mu recruter la jox la poste noonu la ñu xoolee kii mu doy ñu mu recruter jox am na ci droit. c'est le maire kañ ngeen ko xool ba. ba mu doy leen non xam nga quand quand vous me dites. mais Pape yéex na leen doy tamit. <laughs> kii bañ ko rajee bu léegi ngeen bàyyi ba cool iyaa yooyu yooyu am ngeen doo mu doog leen a doy en profil bi dangeen ko yéex xam nga bonne question Ahmed xam nga quand tu me yéex nga yéex na yéex nañu doy ak yooyu xam nga lu ne dafa am leen lu ko sabab hmm. ce qui s'est passé à l'IAM effectivement moo sabab décision bi. mooy wax dëgg. ok donc kon doyu leen. c'est-à-dire que li xew IAM moom ngeen di ko non non non non nañu waxante dëgg. Mm-hmm. dama ne. lu ne dafa am lu ko sabab. Mm-hmm. parce que tey Barthélémy Dias jëlul Samba booy buy traîner ci mbedd bi ne ko la jox conseil technique en sécurité. Mm-hmm. déjà pour être conseil technique il faut avoir donc un certain profil. asumaak nag ci domaine bale ne nee naa la lële moo ko sabab far nag lu ñuy woowee wokkatu bu daj ak gestu Barthélémy Dias moo ñu nekk di mettre en place cabinet chaque jour ngeen dégg ay nomination poste bi libre waa ji poste bi libre na ah. waa ji c'est un sénégalais et il cherche un travail fu mu duggee ut liggéey ñu dàq ko ah ñun ñu jël ko am nañ ci dama am dama am ak laaj jàqare bi dafa ànd ak laaj <laughs> jàqare bi bu ci njëkk moom mooy moom mooy kii xarit am na moom mooy da ngay moom la day toog place am mu sëkk. moom mooy li ñu doon li may may ragal ci réew bi mooy ñu jàppoo ko. séddoowum yaa ma neex. Euh, parce que tey jii waa ji bu fekkoon tey dafa bokk ci mouvance présidentielle bi gëw ma ne lii dinañ ko def dinañ ko ko defal mairie de Dakar dina ko defal léegi séddoo yaa ma neex bi parce que jàpp naa ne tamit dakaar li muy rëy rëy rëy yëpp gëw ma ne. amul kenn ku fi am xarañteefu nekk conseil technique bu Barthélémy Dias. wala postulé woon avant xam nga terminé ci laaj laaj bi mooy. Mm-hmm. est-ce que tey jii finalement du ñu réew mi ci fayantoo ko neexalanteeg ay poste ba finalement duñ talal liggéey. nga malheureusement da ngeen wax dara ba pare indi réponse ci lu ngeen wax. Mm-hmm. sànq kii nee na ma lu tax Barthélémy Dias recevoir Alioune Sall. Mm-hmm. lu tax yow tontu woo sa bopp ne lu tax. non non non warul non non c'est-à-dire lu tax warul recevoir Alioune Sall. Aliou Sall comme je l'ai dit tantôt c'est un sénégalais tant que ñooñu commencé di indi ay. mais xamul li tax ñëw ah, ay cloison ci sénégalais rek problème am na. parce que dafa am d'abord lu ñuy woowee lu ñu moom Sénégal ñoo ko moom. nature bi waaw waaw ma ñëw sa bàyyi ma daanal rek. Sénégal ñoo ko moom fu ma ne Sénégal ñoo ko moom mooy. Imam Dramé c'est un Sénégalais Macky Sall un président ou bien c'est le président du Sénégal. Mhm. Imam drame war na mën a toog en tant que Sénégalais ak Macky Sall. Mhm. noonu la tamit ba Alioune war a mën a toog ak Barthélémy Diaz. Mhm. benn ensuite aussi kii nii mu nekk capitaine Touré Barthélémy Diaz moo ko fal mais yow ku nga wóolu ngay fal mais à des conditions près mooy lan mu ànd ak profil bi nga ko war a mën a jox parce que nu mu ko waxee doo gis Samba Boy. ne ko dam lay jox sécurité doo gis keneen nga ne ko dam lay jox post bi déedéet da ngay xool kii nga wóolu bugg ko dénk ndax am na les qualités requises pour occuper sa post donc c'est pas qu'aujourd'hui on va aller voir une personne qui a juste les diplômes qu'il faut et le mettre à cette place Macky Sall ba muy déglu ma Macky Sall bu muy jël ay nit yoo xamante ñoom lay jox ministre du xool rek gis ni bon kii de jàngeen Harvard wala génne na Yale déedéet kii de jàngeen Harvard mais tamit nekk nit boo xamante moom mu ko santee liggéey mun na ko def comme nu mu ci waree te nag loolu la ba Barthélémy Dias am yàqin muy ni kii il a le profil il a tout simplement l'engagement euh, boo xamante war na ko mun a am pour mu mun a liggéeyal Dakar mu dénk ko liggéey boobu noonu. baal ma tuuti rek baal ma tuuti. est-ce que gisoo ni le le contexte bi mu ko defee moom moo suscité ay questionnement euh, parce que tey mën nañ jot ni bien avant Barthélémy Diaz am na fu mu jaar am na ay nit yu ma xam ni am na fu mu jaar ak ñoom. Euh, le profil bi nga xam ni moom la doon la jàpp ni gis na ko ci capitaine Touré peut-être y avait des personnes yoo xamante ni bien avant ñu ngi nekk ak moom te ils ont le même profil. donne-moi juste le nom d'une personne. non dama wala poste bi mosu fi woon a am ngeen créé ko. daan bi ña looloo mën a ne. waaw dafa gis nga ko fa nekkoon. waaw pour poste bi. waaw elle occupait quatre ah, jigéen la woon jigéen la woon quatre. léegi nag ci carte yooyu noonu. ah kon yéen tamit du ngeen limité dépense. non non xam nga lu ngeen ne non non. carte tamit dañ koy naan ministre nangam ak ministre nangam mënoon na ko boole def ko benn ministre ñu limité dépense. nànk rek moo gënoon dañoo ko ah, ah, fa nekkoon. xam ñun ñoo ñu doog ñëw bu ñuy ñëwee gis loo xam ne normalul wax dëgg dañ koy rationaliser gis benn nit ñu jël ko dénk ko lu mat carte ba ci lool bii sax ci la bokkoon ñu ne ah bii de dañ koy jël détaché ko bii tam dañ koy détaché bii dañ koy détaché donc ce qui fait que le poste là était vacant ñu jox ko mu nekk yeneen salaire yeneen dépense. non mais est-ce wax yeneen salaire ak yeneen dépense. xam nga boo boo quand tu me dis yéen xam ban problème moo naroon am. ñu ne ah lii la la ñu wax ci salaire waroon ko dépassé ñu dépassé ko muy par exemple selon le nu mu tuddati le budget de la ville de Dakar ñu ne lii mooy norme ci salaire yi. instant yi Ville Dakar xaajul bay egg ci loolu donc quand tu me dis un salaire qui va donc euh, qui sera donc de plus sur le budget sincèrement loolu wàññiwul. mais mais léegi la question de fond mooy est-ce que c'est l'affaire euh, capitaine Touré IAM. Mm-hmm. Euh, a provoqué maanaam est-ce que loolu moom moo provoqué ngeen détaché loolu noonu kii amoon ñett na ma tànk détaché ko pour takk. ko a été fait depuis ça a été fait, a été fait comme je l'ai dit tantôt Barthélémy Diaz moo ñu doog ñëw. di former cabinet bi chaque jour ngeen dégg nomination bu bees chaque jour ngeen gis ay réménagement c'est bien c'est normal parce que dafa ñëw ànd ak équipe am tout simplement pour def lu ko Dakar waaye fale donc c'est normal mu ne ah man de Imam Dramé bi wóolu naa ko ci lii na ma doxalal liggéey bi. loolu c'est normal est-ce que xalaatoo leen bu gën a corser seen relation avec. Euh, euh, le gouvernement du Sénégal parce que bii kenn xalaatu par exemple le ministère de l'intérieur wala ministère des collectivités bind leen kenn xalaatu loolu. Mm-hmm. dina su amee. mais bu loolu amul est-ce que du gën a corser ses relations avec le gouvernement. je vais te poser je vais te poser une autre question. capitaine Touré a un problème personnel avec l'État du Sénégal ou bien il a un problème avec Macky Sall et et ses sbires. rek. ci nature des faits la la ñuy wax. ci non non bàyyi ko mu tontu sama question. non mais non man damay laajte rek. li ñëwoon si yaayam li ñëwoon si ba mu jógee ak mënta amee dans les mêmes formes avec vous. enseignement supérieur mais à défaut de loolu amaat est-ce que du gën moo tax ma laajte la ndax capitaine Touré dafa am problème ak état du Sénégal xaw ma donc nag pourquoi. foofu pour loolu pour loolu yow par exemple lan nga lan ngay justifier dàq bi ñu ko dàq IAM par exemple yow. ñun jéemuñu nekk fii di justifier quoi que ce soit ñun loolu suñu. yoon yéen daal da ngeen ne <laughs> non non suñu yoon. nekku ci fu ma ne suñu yoon nekku ci mooy gis nag nit boo xamante soxna lu liggéey wóolu nañ ko jox nañ ko liggéey am na benn militaire boo xam dañ ko rajee woon si mbirum Adji Sarr Sonko kooku lu tax woowoo leen ko nu mu ñëw na fi bët set. Ah, kooku li mu amul. mais mais c'est ce que je suis en train de te dire lay jël di la teg ci poste bi dañ la ko def sur la base d'une confiance kon koo wóolu moom ngay dénk jeex na. amaana militaire boobu. mais yéen xamuñu ko personnellement ak professionnellement parlant da ngeen a xam kii bay am ci moom confiance. te gendarmerie moo la a. moo la gën a. d' accord xaaral kay si am d' accord xaaral sa waa yéegali rek day terminé ak ñoom suñu ñëw de. xam-xam. yoro yoro gën laa xam boppam noonu la ko war a. Moussa Diakhoune ah. noonu la kay nee ah. gendarmerie moo la gën a xam capitaine Touré. waaw Moussa moom dëkkoo leen ak moom dëkkoo sa la ci tontu. xam nga boo mënee boo mënee mosuma liggéey ak moom wala. non waxul lool mais gendarmerie mi lañ ko gën a xam. mu leen ko formé liggéey ak moom. échelon na ko ba échelon na ko ba capitaine. man damay jëlaat exemple rek xam nga dañuy dellu dañuy dellu ci recrutement. xam dañuy dellu ci hmm. damay jëlaat exemple balaa ngay liggéey Seneweb Seneweb dala xamoo non bu non non parce que là non parce que fii non parce que là on parle lu tax ma koy jëlee ci yow il faut que sénégalais mën a comprendre on parle de recrutement gis nga tey c'est la doon déglu fii benn employeur non non déglu ba ma yeexal rek non ma daaneel s'il te plaît benn employeur moo am muy Barthélémy Dias c'est lui qui juge de la pertinence du recrutement moom mooy xool ndax waa ji doy na ko wala doy ko ba jël ko. mais am précédent bi mu am quelqu'un qui a été accusé dafa dafa saa yëpp la république. c'est lui pour lui déglu ma pour lui. ce précédent-là n'est pas important pour lui. on a besoin de l'obligation de réserve xam pour ce poste-là nga nekk conseiller technique en matière de sécurité pour le maire de Dakar la capitale de la du ah. mais au moins li gën a kii mooy euh, l'obligation de réserve donc si laaj mbirum sécurité mbirum tekk Dakar la. yooyu si je comprends bien c'est pas pour rien. donc si je comprends bien une question. si je comprends bien euh, euh, damay Omar Touré. Euh, mënu amul bàmmeel lu biir. yaa ko wax non non damay laajte parce que. doo ko ne boo nee obligation. ma amul position damay laaj. damay laaj conclusion damay laaj damay laaj waaw xam nga boo tiré conclusion bu ma ko bu jox d'accord léegi ma jox <laughs> nañ bàyyi sama mu intervenir aussi si débat bi parce que boobu ba léegi moom tamit am na ay ah, xalaat yu ci bëgg a andi sa position par rapport ak euh, li Barthélémy Dias jël léegi ki nga xam ne moo nekk Seydina mu nekk conseil technique am ci wàllum sécurité lan moo ci sa position waaw man sama position moom yaakaar naa ni Sénégal yëpp xam nañ ko man d' abord li may njëkk a ñaaw kon noonu laa ñuy kan <laughs> ah non damaa xam ni man